waaye bu doon événement bu bees la dana la jaaxal lool moo ñu nekk ci bëccëg nekk ci bëccëg ba xëy rek benn jour rek guddi am da lay jaaxal waaye mbokk loolu kawteef la suñu borom dañuy bàyyi ci bëccëg bi ñu dem ba mujj muy roof guddi nànk nànk nànk ba mujj nga yëg ni yaa ngi ci biir guddi ñu deme dem bay mujj jàng nañ sànq suba gi ñëwaat changé waat loolu loolu it gis nañu la koy mandargaal mooy jant bi mooy mandargaal guddi gi ñëw mooy mandargaal suba gi ñëw moo taxit suñuy jaamu yàlla suñu borom aj ko ci jant boobee ca mooy suñu waxtu julli juróom yépp jant bi moo koy mandargaal borom boobu nag ne lii ma leen wax ca mooy lañ jàngoon démb mooy saqar mu ne moom day benn la ca mbugal yu màgg yee xaar yéeféer yi ihdal kubar mu ngi noonu ca mbokk sawara wax nañ leen ne nekk la juróom ñaar yi wàccuwaay saqar benn la ca yi ci gën a màgg suñu borom mu ne mi ngi koy xuppe doomu aadama yi ngir ñu bañ a def lu leen di yóbbu saqar yàlla nañu yàlla musal ci saqar borom bi nee na li tax mu netti li ñu na muy demee muy naziran lil bashar ngir nit ñi mën a fogaru ba moytu ko ngiree ku mu soob nga daal di jiitu topp ndigalal yàlla ku mel noonu day dina mucc ku mu neexit nga des gannaaw ca mbokk loolu ñun rek la ko yàlla may ak jinne mboolem bindaa fanu yàlla yi suñu borom da leen tàggat ci ñu jaamu ko ci nam leen binde amaa ñun nit ak jinne suñu borom subhanahu wa taala moo ñu tëralal yoon bi comme nañ koy jàng ci insaan imma shakiran imma kafura yoon baa ngi nii daal ku def lii bàyyi lii def lii bàyyi lii àjjana nga jëm amaa ku ko deful sawara nga jëm léegi nag kum neex nga continuer jaar ci yoon bi kum neex nga des gannaaw fu la neex jaar borom bi ne bépp bakkan lam liggéey bu ñëwee loolu moo koy doon benn garantie buñ koy téye loolu moo koy téye yéeféer yi ku nekk selon la nga liggéeyoon sa war a mbokk gis nañu ne ay place yu sofantikoo la borom bi nee na naafiq yi fii darkil asfali min an naar fa gën a suufe la ñu nekk ci safara loolu mooy ñi nga xam ne dañuy nekk yeyoo lañ def bam des li li ñuy tudde ashaabul yamin mooy jullit yi yàlla subhanahu wa taala gërëm ñooñu day yàlla da leen di baal seeni bakkaar fulul leen seeni jëf dolli ci njëggalam ak yërmandeem yóbbu leen ca kaw ajjana ya ñoom ñu nekk foofee di xool di laajante waaw ñun saay-saay sañ dëkkaloon ñu ñu doon sonal dañuy saboote ma ñoom fu ñu nekk gannaaw ba suñu borom won leen leen te bokk na ci xiiwalu ajjana nga nekk ci ajjana di gis na yàlla di mbugale waa sawara te it nga gis la la yàlla waajaloon boo jaaruloon fu ko neex loolu rek ajjanay boppam la comme it contraire ba waa sawara bokk na ci liy gën a mbugal seen xol ya ñi ngi jàkkaarloog waa aljanna ak seen bànneex ya ñi ngi jàkkaarloog la leen yàlla waajaloon bu ñu jaaroon fa neex yàlla su ko defee ñi ngi leen di laaj suñu borom moo xam lan mooy nar a nekk distance entre ajjana ak sawara waaye nagam doomu aadama moo mën a dem tey ba nit nekk ca kaw asamaan ya ñi nekk ci kaw suuf di communiquer ak moom nit nekk ca fa gën a sori ci penku di communiquer ka gën a sori ci sowu waxuma suñu borom jël waala kon ñi ngi laaj waa sawara waaw yéen nu ngeen def ba tàbbi sawara waay ñu ngi noonu nu ngeen def ba tàbbi sawara la ñuy jëkk a wax mooy daawuñu julli loolu tax ngàllawaay ñu ngi waxaat di répété yow ndawal jullit góor-góorlul ba lenn ci àdduna du wut alal du ay étude du ne dama nekk ci dëkkub nasaraan moo tax ba ngay sàggane julli ngalawaay yiwit képp ku la mën a woo ci ne kaay ñuy ñëw ci jaamu yàlla goo xam ne julli bokku ca ngalawaay xamal ne ne ku alku la bëgg la alagaale waa sawara la ñuy jëkk a wax mooy daawuñu julli ñaareel bi tamit mooy ñun daawuñu leel miskin luñ masaan am faale wuñu woon miskin yi te loolu it nekk benn danger bu rëy lu bari ci sunu maam yi seen am am lu masaan bari dañ daan jaxasoo miskin yi ci seen dëkkuwaay yi amma tey lu ci bari ci intellectuel yi da ngay gis ne li leen dal mooy la sunu boroom wax ida an'amna ala al-insan a'rada wa na'a bi janibi dañuy dem di dëkkee ay dëkkuwaay yoo xam ne miskin du leen jege te loolu c'est très dangereux ngi noonu borom bi subhanahu wa taala ne nekkoon nañu di xuus ànd ak ñuy xuus mbokk kiy xuus ci ab déeg pax ya ca nekk ak la ca nekk ci ay musiba mën na koo gis ndax ngi xuus ci biir ndox mi noonu nit la am nit ñu bari fu mbooloo mu xumbe daal ña nga fa fu mbooloo mu xumbe ña nga ànd ak ñoom ñu leen di dig di leen waxal duñu xalaat borom bi subhanahu wa taala ne ñu dolli ci it ñun dañoo weddi woon ne ëllëg ci si biir yàlla danañu fay suñuy jëf loolu lañ ko weddi woon borom bi nag ne ci loolu la ñu nekk ba ba yaqin dikkal leen yaqin boobu ci dee lay commencé képp koy dee dugg nga ci yaqin moo tax suñu borom ne waabud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin del jaamu sa boroom ba baa ngay am lu la wóor te lu la wóor loolu mooy dee bi nga xam ne li nga gëmoon ci kumpa yépp yaa ngi jàkkaarloog moom léegi mi ngi noonu sunu borom jalla wa ala
فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة
barakallahu fiik suñu borom mu ne fama tanfa'uhum shafaa'atu shafi'in ñooñu day nekkul di leen jëriñ rammuk ña nga xam ne ñooy ramm fama lahum ani tazkirati mu'ridin ma yéefiri lu leen ñeel ba fàttali gii ñu dëdd woon ko gannaaw ka annahum xumurun mustanfira ñu mel ni ay mbaam àll yoo xam ne yu ñu dàq la farrat min qaswara ñuy daw la nga xam ne mooy gaynde ga joox ci ñoom bal yuridu kullu imri'in minhum la am kay mooy dana bëgg képp kenn ci ñoom an yu'ta suhufan munashshara ñu jox ko téere boo xam ne bu ñu tasaare lay doon kalla bal la yaxaafuuna al axira déedéet li waral li lépp mooy ñoom ragaluñu alaxira kalla déedéet innahu tazkira lii day du dara lu dul ak fàttali fa man shaa zakara ku mu soob mu doon koo xam ne day fàttali ko loolu wa ma yazkuruuna illa an yasha allah waaye du ñu fàttaliku lu dul ne dafa soob yàlla huwa ahlu taqwa moo gën a yey ci ñu koy ragal wa ahlul maghfira moo gën a yey ci jéggale ay ba ay bakkaaru jaamam mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ne ñooñu melowoo melokaan yooyu weddi bi si penc daawuñu julli rammuk ñay ramm du leen jëriñ yowmal qiyaama loolu muy wone ne ramm day dana am yowmal qiyaama am na ramm goo xam ni su suñu boroom dana ko jagleel suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam kenn du ko ca fekk te mooy ramm ga mi ramm ngir yàlla attey jaamam ramm ga mi ramm xeetam ramm ga mi ramm waa aljanna waaye gannaaw loolu moom ak moroomi yenentam ak i malaakay borom bi ak ña yàlla gërëm dana leen may ñu ramm ci ay nit ñoo xam ni seeni jëf dafa yemoo woon ci àjjana ak sawara ñu ñaan yàlla tàbbaleen aljanna bi iznillah mu am ñoo xam ne dañu yeyoo woon dem sawara yàlla sant leen ñu ñaan ko yàlla may leen bi iznillah ñu musal leen ci sawara am na ci ñoo xam ne lañ def jéggi ne dayoo ba fokk ñu mbugal leen waaye yàlla sant leen ñu ñaan ko ñu génn leen biir sawara loolee da ngay gis ne baba ñooñu yàlla tere la ak ramm nga xam ne amul kenn kuy ñëw ëllëg yowmal qiyaama naan yàlla baal ma sem ma sàmba wala ma demba man dha allazi yashfau indahu illa bi izni yàlla rek mooy joxe ndigal te wala yashfauna illa liman irtada yàlla rek mooy seet ku mu gërëm ci ay jaamam mu ne ay diw terale naa la nga dem ñaan ma mar ramm diw mi kon lépp day dellu ci yàlla mu ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne ñooñu di ramm yéefir moom bokku ci yéefir kenn du ko ramm loola tax boo delloo ci aaya ba suñu borom di wax naan rubbama yawaddu lazina kafaru law kaanu muslimin yéefir yi dañuy gis biñ duggee biir sawara ñiñ doon àndal di agressé ànd ak ñoom di naan ànd ak ñoom di njaaloo waaye ñoom gëmul nañu yàlla gëmul nañ bis penc su borom yàlla dogal ñoom ñu bokk tabbi sawara waaye yàlla ne malaaka yi dem leen sawara koo xam ne am na ci ngëm la toll ni misqaala zarra ngeen génne ko bu ko defee ñu génne jullit ñi yéefir yi ne waaye ak nekkoon ñu gëm ndax ñii ñoo bokkoon li ñu daan def te tey gis ngeen ña ngay jëm àjjana ñun ñi ngi sax xaalidina fi naar loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax ramm am na yowmal qiyaama waaye bu ko sàkku lu dul ci sa borom boo gisee li yàq diine li ëpp ci nit ñi nag mooy ramm googu am yowmal qiyaama kii danaan man de man Cheikh Ousmane laa yaakaar kii ne man de Cheikh Ali laa yaakaar kii ne man de Cheikh Samba laa yaakaar ca mooy jàpp ne yaakaar googu nga am ci moom ni mu demee ci àdduna nga xam ne boo amee problème ba dem ci sa nijaayu ministre wala procureur dana ko régler bu ngeen demee yowmal qiyaama it boo gisee sëñ diw rek mboolem problème yowmal qiyaama dana la ko régler waaye mbokk bu ngeen dajee yowmal qiyaama moom day am lu ko doy sëkk sëkk sëkk sëkk am déet suñu borom ne ne li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi ku nekk daa am lu ko doy sëkk kon ramm gi dee ko yaakaar ci yàlla yonent bi alayhi salaam nee na képp koo xam ne dégg nga aji nodd jay nodd nga ànd ak moom wax la muy wax bam pare nga ne ay yàlla yow mi nga xam ne yaay boroom woote ba matali bi ak julli gi ñu nar a taxawal yàlla na nga may suñu yenent alwasila ak ngeneel ca nga dekkal ko place ba nga xam ne moom place ba ñu gërëm ba loolu ak ñaan la goo xam ne boo dajee kuy mën a bind dan la ko bindal nga jàngoo ko muy allahuma rabba hadihi da'wati tamma bam jeex en attendant nga koy man foo dégg ñu nodd ba pare àndal ak noddkat ba wax la muy wax su paree nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même boo doon wax allahuma salli ala muhammadin wa sallim la mu gën a gàtte nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa dina yàlla yàlla na nga jagleel yonent yàlla muhammad al wasila nee na mooy place boo xam ne kenn nekk yooyu yowmal qiyaama képp ku ma koy ñaanal da nga dagan ci ëllëg yàlla ramm la tabbal la aljanna kon loolu lu am solo loo xam ne jullit bu koy fàttee ngalawaay foo déggee aji nodd àndal ak moom wax la muy wax su paree jullil ci yenente bi alayhi salaam ne yàlla yàlla na nga jagleel yenente yàlla muhammad alwasila mi ngi noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne waaw yéeféer yi moom lu leen ñeel ba ñuy daw waaraate gi waaraate goo xam ne dalay woo ci lu lay texeel adduna di la texeel allaaxira di la may jàmmi adduna jàmmi allaaxira ba pare nga koy daw mbokk mooy ñàkk xam rek ñàkk xam rek mi ngi noonu loolu suñu borom melal leen ni mbaam yoo xam ne gaynde daa juux ci ñoom te mbokk boo ko mësul gis it documentaire yi ngay gis xam ngeen ne mbaam yi nekk càll bi far ba mujj gaynde ne juux seen biir ku nekk day fëgg sa jë ci benn place départ noonu ñuy tasaaroo loolu la borom bi wax ñii ne nañ njabar la ñii ne daa dof ñii ne daa rëy ñii ne léegi maam yi ku nekk am na looy wax lu bokkul ak la sa borom di wax comme mbaam yi buñ tasaaroo ku nekk da ngay jaar fa nga fa nga xalaat borom boobu nag subhanahu wa taala ni ñoom de li ñu bëgg ndax loolu nekk na lu jaadu ca bokkoon na lu kilifa màkk yi doon wax waaw Muhammad nee nga yàlla day wax ak yow waaw d'accord léegi kay wax ko mu wàcc ci ñun téere ñu nit ku nekk na la wàcceel téere wax na la Muhammad rasulullah kon daañ la gëm suñu borom ne xoolal ku nekk ci ñoom nee na nañ ko jagleel ab téere borom bi ne déedéet dañoo ragalul àllaaxira rek mbokk yii fiir ragalul àllaaxira parce que gëmul àllaaxira waaye malheureusement mbokk jullit li ëpp ci jullit yi tey ragalatuñu àllaaxira lu tax am nañ garantie ne àddina lañ jëm li ngi noonu ca mooy créé nañ fi ay yoo xam ne nii jàpp nañ ne ku ca xis bokk suñ diw moom ku ko xis ba gëm suñu mbooloo mi ku ko xis ba jël suñu wér di bii ku ko xis ba jël waxumaa yow waaye sa njabootu njaboot ñépp àddina lañ jëm mbokk loolu da ngay gis ne mandarga la ci mandargay texee di wallahi suñ borom mu ne yéefir ragal ñu àllaaxira waaye suñ borom mu ne liñ jàngoon ca saala saail walazina hum min azabi rabbihim mushfiqun mbokk julit day ragal mbugalu yàlla borom bi nag ne wali man xaafa maqaama rabbihi jannatan ki ragal keroog ba muy taxaw ci kanamu boromam te buy dëgg sa xol rek da nga ko waajal buy dëgg sa xol da nga ko waajal bu la leeree ne su ma deful ay ndigalam bàyyi ay tereem ba ma dajee ci kanamam damay mbugal da nga ko waajal suñu borom mu ne ku mel noonu àjjana moo koy ñeel amaana ko dem bañ génni ci yow la nga xam ne mooy ragal yàlla te Sénégal boo fi dëkkee day mën ngaa bëgg yàlla na am mën ngaa bëgg yàlla waaye ragal yàlla moom dañ koy génnee sa xol duñ la wax lu dul lu la garantir ay kilifa yu mag ne àjjanay gàcce rek la ñuy bañ waaye maam yi liggéey nañ lépp ba mu jeex loolu mbokk loolu la ñuy wax donc nit ñi ragaluñu yàlla loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ni na ngeen xam ne lii day ak fàttali la ca mbokk mooy alquran fàttali la bu lay fàttali sa digganteeg sa borom lan moo la ca war digganteeg waajur lu la war digganteeg say morom lu la war képp ku mu soob nga fàttali ko ko waaye xam leen ne du ngeen mën a fàttali ko jëriñu lu dul dafa soob yàlla ca mbokk jullit ñaar yooyu lay boole da ngay xam ne da nga war a def ay effort waaye nga xam ne lu sotti yàlla la am déet nga noonu fës yi na nga day jaamu yàlla waaye da ngay xam ne yàlla dong la mën a dimbali fës yi na nga bañ li yàlla bañ waaye da nga xam ne yàlla lay dimbali mi ngi noonu yonent Yàlla Shuayb ba baka xeetam ba tëg ko ne ko da ngeen di dellu suñu suñu xërëm yi mu ne déedéet duñ ca dellu mukk illa an yasha allah xanaa bu ne xëy yàlla ca mooy yeneen ci yàlla mais gis nga wóoluwul boppam ci ne duma dootuma jaamu xërëm mu ne duñ ci dellu mukk xanaa bu neexul yàlla loolu tax jurit lépp lay wax da nga naan insha allah mu lay jàngalit lépp loo def mu baax da nga ciy sant yàlla mais doo ko bàkkoo nga noonu illa an yasha allah suñu borom nag mu ne mooy gën a yey ci ñoom ñu ragal ko gaa yi yàlla yooyu naa ñu ragal ko de yàlla moo yor mbugalu àdduna yor mbugalu àllaaxira koy ragal rek yàlla gën a yey ñu ragal ko waa diine la da ngay bàyyi diine wala ma tëj la da ngay bàyyi diine wala ma rey la loo ko ragal ragal yàlla gën a yey am déet njabaru firawna ya ba leen firawna woowee na leen ñu jàkkaarloog Moussa la ca xew ñu bëri xam nañ ko xam ngeen ko daf leen ne ah da ngeen di gëm Moussa bàyyi ma bu ma leen reyee sax ngeen kontaan wala waaye la usallibannakum danaa dagg seen loxo ndeyjoor dagg seen tànk càmmooñ daaj leen ci tàn taatu tàndarma yi ngeen def fa une semaine doog a dee gars yi loolu métti wu la waay waaye dañ ne ko laa dayir loolu garaawul ñun ci yàlla la ñuy dellu allahu xayrun wa abqa da nga noonu yàlla moo gën moo gën a sax te it ay mbugala ma gën a tar kon huwa ahlu taqwa moo gën a yey ci ñu ragal ko waaye it mooy ahlul maxfira xamal ne loo ragal yagal yàlla daga tarxiis doomu aadama du malaaka loo ragal ragal yàlla daga tarxiis heure boo tarxiisee huwa ahlul maxfira boo delloo ci moom te muy dëgg rek yàlla baal la sa bàkkaar ba nga def lu mu rëy rëy boo delloo ci moom te muy dëgg yàlla baal la yàlla na yàlla jagleel ñu taqwa te jagleel ñu njëggalam àdduna ak alaxira